ci yenn kaay yi. ci yenn yi. El Hadji Elhadji Ousseynou Ndiaye leen ak jàmm ci xibaar yéeni kaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo jamono ji nag réewum Sénégal waa l'accident yi fan la ñu moom yéeni kaay kay bi dañu xamal ne accident bu métti am na kay fi nga xam ne di ca yoonu Sandiara am na lu toll ci juróomi nit ñoo xam ne jot nañoo xam ne am nañ ci xam ne accidenté na ba am ay gaañu-gaañu di ñu fi nga xam ne nag moo dëkk sel bi di Touba di jëm fi nga xam ne nag moo di Dakar

ko joxoon waa ISRA ki nga xam ne daal maanaam daal da doon amal ñoom ñoom la ñuy jëm na ci fàll liñ ciy jëfandikoo bëri lool jamono ji na njiitu réew mi na lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu mel ci jamono xamal ne maanaam daal dialogue national bii nga xam ne daal moo di professeur Issa Sall gannaaw ba mu wujjee ci dialogue national ba jamono ji ci lañ ko dàqee ci parti bi nga xam ne moo di PUR waaye Omar Sarr gannaaw moom itam ba muy wujjee fi nga xam ne moo di dialogue national ba ci la tàmbalee am ay jafe-jafe ak ñi nga xam ne nag ñoo di waa parti Le Soleil yéen moom xëy nag sekki waxtaan ak ki nga ne waxtaane ko ci réewum Sénégal maanaam daal tolluwaayu réew mi ak jafe-jafe yii nga xam ne daal moom la ñuy jànkonteel dialogue national bi ak yeneen i ku ko bëgg a xam demal fekk ko ci Le Soleil yéene kaay ñu daal di koy jeexaleeg l'observateur yéene kaay bi duñu xamal ne ca Ziguinchor ñaar ñu góor lañ fa jàpp ñu doon def yëfi góor jigéen ñoom kay ñu leen jàppee ca stade Aline Sitoé Diatta bi nga xam ne nag moo nekk ca Ziguinchor ñu doon def loolu nag mooy aaxiru samaan mën daal xam naa ne dëkk bi jaaxal na ma mën nag fi mu toll nii sama bopp laa tal ndax service minimum ci laa a dee